asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen di nuyu bu baax di leen ziare bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen seen borom jox ah di leen ñaamal di leen ñaanal jàmm ak gudd fan gu ànd ak wér tey nag ñu ñëwoon fii seen seen émission bu mag bi di li ah tey ñu fekk si fi kan xale bi nga xam ne mooy Wally 2 xale bi am jom boobu xale bi nga xam ne macha allah dafa am initiative bu mag muy lan di bernde di joxe ay ndogu ci weeru koor gi ndax weeru koor gi boo ci defee benn suñu borom fay la ci fukk kon maanaam def lu ci euh, def ci lu baax ah war la tey ñu ñëwoon fii ànd ak waa El Vision ci kan ndogu waali Waly dë mi nga xam ne tey moo dëkk fii si Kambaaw ñu ni tey nañ ko ñëw defal ko macha allah benn interview ah nga xam ne mbokkam yëpp génn nañ am di jàmmam yëpp génn nañ sama caméraman dama lay bàyyi ñu de waxaatee rek yaakaar naa ni tey ku gis seen émission bu mag bii ah di ndogali nga xam ne rëy na ñu njëkkee ko kon ci xale bi nga xam ne mooy Waly 2 macha allah tey nag ñu taxaw ak ki nga xam ne mooy ménagère Waly ménagère nuyu naa maa ngi lay fay sëñ Mouhamed bi tey Waly 2 teg maanaam nan ko gisee ak nan koy jàngatee waaw lii moom mbooloo la rek xam nga mbooloo mooy doole te Wally dafa nekk si koñ bu nekk muy koñu Fanta jàmm gën si kàmbaaw ñëpp ràññee ko xam ko ñooñ tamit seetaan nañ ko benn yoon soo gisee mu mel nii ñooñ tamit jàpp nañ ci bu baax a baax a baax a baax ndax lu mu def nii moom dafa rafet moom franchement nekk nañ fii xam nga doon nañ ko sax amaana mais réewu noonu nu mu nii tey quoi initiative bu rafet la jël xam nga man moom dama siy dellu di ko encouragé xam nga ñun koy ñun moom ñu ngi si ginnaawam wax dëgg yàlla yàlla chaque année tamit mu gën a yokk a ah, di ko ñaanal yàlla tamit lu bëri man dama kontaan parce que defe naa lépp si xeetu gëm sa bopp la ba pare waale bu amee initiative yi man mënu lu dul Ameth mënu wax man dama kontaan barki Serigne Saliou Mbacke li may ñaan yàlla sunu borom li mu ci bëgg ci ngëneel yàlla na ko sunu borom def boole ko ci ñëpp Ameth man damaa kontaan nag pour man Wally 2 defagul dara parce que waru ko woon yaay borom million ñoo ko waroon def tey Wally ñëw na xale bu ndaw mënoon na ko see bañ a fekk mu toog na ah xale laa artiste bu ndaw laa demaguma fenn mais deful loolu xam nga te gis nañ ñu mu ci sonne quoi. dafa tëb koñ yëpp. waaw ñëw si waa Fanta kon ñun lu ñu def lu dul jàppale ko. Mhm. ndax man ñu ko mujjee xam man si laa bokk. Mhm. waaw ndax man fële laa nekkoon gant ba. léegi ma ne ma am na benn jeune talent bu nekk fii waali deux mhm. fekk muy ko ñoom liggéey. man xaar ma dem fa jëm ko xool. waaye bu ma xoolee bu ma xoolee car macha allah dama ko xoolee xam ne xale la. waaw te féegewul yenn féege bu féege woon nii laa jaar romb ko. te jour boobu ma koy njëkk a gis jour boobu la ma jàpp. maanaam def ma kon waaw mel ku ma xam ay ati at. waaw lu ñu def lu dul ñaanal ko yàlla daal ak avancement loolu laa ko ñaanal yàlla. te ñoo ngi ci weeru koor. artistes yu bëri dañuy def social. loolu ñu toog loolu xalaat ni kii war naa mën a def social. loolu tax ñu jël initiative bi def ko du woo fan si club bi yëpp. du woo jàmm gën si kàmbaaw ñëpp. pour gën a lancer suñu artiste. ndax affaire yi du yam fii quoi. dafa baax xam boppam xam mooy kan yëg nit bëgguñu. ñu bëgg ko rek te yàlla tax tamit. la gaa defaluñu dara nag mais baaxam moo tax ñu defaral ko li mu am tey jii nii mm. dañ koy sant nag parce que waali daal. amul benn problème wax dëgg fa yàlla xam nga ñeneen ñëpp la yéen jàmm daal. te xam nga dañu gone moom bu sa loxo setee da ngay mën a bokk ak nekkul kakataar boo xam ne bu tayee day ñuul bu subaa mu weex kan macha allah li mu ñu wan rek lañ koy wan. loolu rek la mais du leneen. koñ bi mag ndaw ñëpp la yamale waali alalam kaat kenn muy mag muy paa ñëpp la yamale ñun daal waali ñu ngi koy sant di ko gërëm. dafa ak kaf rek lañ ko xamal mhm. xamaluñ ko dara moom ku baax loo dëgg yàlla dafa baax mhm. waaw yal na ko yàlla fay xolam daal. ñëpp la yemale di nit ku baax nit koo xamante ne tamit li mu moom du ko booleeg doomu aadama man mii di wax ak yow xam naa ci dara. Mhm. fi la joge ci koñ bi damay sëy sikaab mais day ñew ba sama kër di waxal lo xamantene sama defaluma ko kon wali koku nit ku bax la wali dal ñong koy ñaanal li mu jublu yalla nako ci suñu borom jàppale teraanga ci dañ cee judd barke sin ay talib suñu bamba lan barke suñu tuba lepp la ñuy def hmm, duñ ci ragal waaw ndax sëriñ bamba lan am barke sidina muhammad yaqud abdullah wa huwa amadou xaadima sumatoho muhammadu يقود عبد الله وأحمد خادم ما سماته محمد يقول عبد الله وأحمد xaddiima ma suma toxoo Muhammadu pour man di nekk indiwaat fii jàmm gën si Kambaaw waaw ñun daal defuñu lu rafetlu affaire bi di ko ñaanal affaire yi muy continuer ay ati at nga xam ne sax doo dul doon sax ba koy ba nga xam ne ay ay euh, koor lay nekk mun na saa su nekk xam nga mu woowaat nit ñi def ko lii daal dañ koy rafetlu quoi mooy loolu. ni ñu leen ko waxee woon sànq ci suba ba tey ñu ànd ak ki nga xam ne mooy Wally 2 jeune talent bi nga xam ne moo nekk jàmm gën si Kamba macha allah rabi dañ fi def loo xam ne tey ah am nañ yaakaar ci moom te yaakaar naa ne gone bu naree am jom ci euh, tànkam koy xamee macha allah ni muy liggéeyee tey nee naa initiative bii mu teg macha allah euh, ay magam ñoo ko waroon def moom mu jël ko di ko def kon Wally du mënuñu daal lu dul di la njukkal Wally nuyu naa maa lay fay bu baax a baax euh, Ameth Diop ak waa télévision Elvision ñëpp maa leen nuyu di leen siyaar waaw macha allah euh, tey ñu gis tey initiative bii nga teg macha allah woo waa jàmm gën si kàmbaaw yëpp ne tey sama kër ngeen di dogo waali loolu lan moo nga def ko. waaw ñun moom xam nga rek euh, man moom taalibe Serigne Touba la dama xam teraanga judd gi teraanga nekk taalibe Serigne Touba nekk murit nak waaw ta xam nag jàmm gën si kàmbaaw rek la am. damay gis ñu may dooleel su ma xewlee ñoom ñëpp macha allah ñu ñëw teewal ma mhm. waaw ñëw teewal ma ba ma kontaan xam nga taman uh, lii xam nga rek ñëw def ko nit ñëpp ñëw waaw joxe ay xéwal ñëpp ñëw lekk waaw loolu quoi ñu ma taxawoo jàmm nga si kaamaaw xam nga rek moom la laa am quoi waaw moo tax ma def loolu mais tamit uh, sant yàlla rek. waaw moo tax ma def loolu tey Wally tey bu ñu gisee macha allah uh, people bi macha allah rëy nañ tey dama leen laaj waal yi dafa am ku nekk sa ginnaaw di la financer wala yow yaa jël sa alal di ko ci def. waaw tamit waaw lépp loo gis moom dina ñoo xam si ni sama alal nag dem na ci mais tamit am na ñoo xam ne jàppale nañ ma bu baax baax ku ci mel ni Nogay njaay mhm. waaw séeri Asine la jàpp na ci ak Dame Ndour mhm. ak Bàcci Bàcci Bàcci Diop. Mhm. jàpp na ci ay Petit Khoulé. ñëpp jàpp na ci franchement jàpp nañ ci affaire bu baax a baax. waaw ak sama maire yi nekk ci koñ bi ñëpp daal ku lim da ngay jum vraiment bu baax a baax sama waa koñ tamit seetaan nañu ma benn yoon sans fan si club maa leen sant di leen gërëm fan si club bu ak bu la laaru set euh, ak bu nek ci kàmbaaw ñep ñep sax xam nga ñëpp mënuñ teew ndax xam nga xat-xat yi ak fimu mu motax loolu la mais tamit leen sante di leen gëreum ñom ñep waaw gaay japp nak moom bari na waaw sha allah gaay ci japp bari nan kon duñ def luddul di sante wali bu baax mais wali sa carrière musique ah ban plan nga ko tëralee ak sha fan nga bëgg egg ci sa carrière musique waaw sa carrière musique euh, bon bëgg na fi sama turondo yegg tay wali sek manam ba sunu papa Youssou Ndour sunu mag ñi fi jaaroon mais ñoom ñëpp bëgg naa foofu ñu ma dem bëgg naa dem gis ko loolu laa loolu laa ñaan yàlla te heure mu jullee moom laa ñaan yàlla waaw te Serigne Touba laa yaakaar loolu aussi dina am xam heure mu jullee ñu ko soxla ñaan waaw bëgg naa foofu ñuy egg ñu dem ba romb ko tey macha allah tey euh, Wally ci musique la nekk mais jàpp nañ tey képp ku nekk ci musique waroo def ay social yu mel nii tey li ma leen wax sànq rek ñeneen ñoo ko waroon def macha allah mais gone tey bu defee lenn doo ko ci xas ndax dangay xam ni gone la mais moom mu doon gone goo xam ni gone goo am jom la ñëw def initiative bu mag bii nga xam ne jàmm gën si kàmbaaw ni mu rëyee nga ñëw togg say ginaar ah def say ndog yu baax tey kon waali tey waa si jàmm gën si kàmbaaw amuñ sa fay mais maire yi sa koñ ak paa yi sa koñ lan nga leen lebal ba macha allah ñoom ñëpp génn jàpp ci bis bi. waaw nit ki moom boo nekkee ndaw bon man moom. fu man leen fekk maire yi yëpp man dama leen taxaw dama leen di nuyu ama ñoom yitte nit ki foo mënti nekk waaw del kaf di ree xam nga defalu ma leen dara nag barke Serigne Touba danoo baax rek ndax bu leen neexul yëpp mën na leen a fekk mais sama yaay yi ñoom ñëpp ma lim na ndax ku lim da ngay jum mais sama yaay yi nekk ci koñ bi yëpp maa leen di sant di leen gërëm aw ma seen fay barke Sidina Mohamed aw seen fay waaw su ma limee damay jum aw ma seen fay maa leen sant di leen gërëm billaahi wallaahi taalaa sama xol dafa sedd franchement waaw comme ni mu ko waxee rek sama xol dafa sedd Wally tey bërki démb ba tey ñu gis la nga nekk ci initiative bu mag bi nga xam ne tey nee naa bu la yàlla joxee junni ah da laa séddale waaye bu la joxee 1000 francs pour sa bopp la tey macha allah tey waali tey waa commune Sicap Mbao yëpp waali kër gu nekk mu dugg fa ah di la di soxlaam pour lan ah initiative bi ndax yaakaar naa ni borom milliards yi ñoo ko mën a def ak borom millions yi ndax lii dafa rëy waali tey jàmm gën Sicap Mbao yëpp ñëpp a génn waali tey bëgg naa tey xam ne da nga leen di jox xaalis wala tey ñoom dañoo da ngaa seq ñoom benn relation boo xam ne tey loo xewle dañ ciy ñëw. parce que moom lépp fépp foo nekk rek war na si fulaak fayda waaw mooy loolu mais tamit euh, deful ma leen dara nag di tax ñu may jàppale danoo baax rek ah am seen yéene rek ñoo di ma jàppale bilaay franchement. waaw am seen yéene moo tax ñu may jàppale te Waly macha allah for naa ci yooyu bay ñu ni Waly allah mën na xasaayit ndax Euh, jàpp nañ tey woykatu musicien waru man xasaayit waru war waru jàng alxuraan déedéet dessin la loo xam ne suñu borom moo fa jaarale ci sa tànk kon waalite dama bëgg macha bala balaa ngay way dara dama bëgg nga yëkkatil ma benn baytu xasaayit rabbi ahmadu ahmadu ala muhammadi alayhi xayru salawaati samadi بارني اللهم في الحياة وجل فادي وتن الايادي بارتني ربي من الإسراك لي خالد اليقين سائراك إليك وجدت افتقاري أبدا فلتمني وريقنا يا بدا ناجيت من برا ولي يقود للجنان برا ناجيت باقيا خدي من صلاه كتابه ولي يقود نسلاه يقودني إلى دخول الجنان وسل جدان باب طيب الجنان لو ختاب براديا أنخوال رسوله ومن خلق wala lii lam yoo xam ne jërëjëf Serigne Touba